jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz mbokku internetu Fekke TV ñu ngi amati mbégte kontaan saa su nekk naan nag ñu ngi si journée ne mooy journée jam jam production la 14 mais nag dafa am drapeau ne mu ngi si Boy Jules war ko bëre ak Moussa ah muy journée bu koo xamante ne tamit naan la doomi parcelle la doom la tamit koo xamante ne daanaan la bu jógee dëkk bi ñëpp jug ànd ak moom gunge ko ci li nga xam mooy ci drapeau boobu la 14 gis jam production taxawaay bi am na solo lool ci lamb mu nekk lamb joo xamante ne mën naa ne moom lay tëjee saison am ah, ñuy tey dalal ki nga xamante ne Assane Fall nag di drapeau bi nga xamante ne tey Boy moo ko war a mën a bëre ah ñu ngi leen nuyu Assane. waaw ah, ñu ngi lay fay Abou. di nuyu adduna di nuyu képp nga xam ne mu ngi leen di suivre seen site bi di nuyu waa place bi di nuyu. suñu frère Blindé. Mhm. waaw di am kontaan de seen teewaay fii. Mhm. waaw te diggante ki nga xamante ne mooy jamaïcain tey mu nekk loo xamante ne tey xam naa ne ku dem ba jël tuddeel drapeau rek mhm. am na lu ne seen diggante lu rëy rëy rëy rëy tey ban sentiment nga am si tuddee boobu. waaw lu lu lu am mbégte. jam parce que dama dafa def loo xam ne doon acte boo xam ne maam bett na ma. mu doon loo xam ne mosuñ ko xalaat suñu carrière mosuñ ko xalaat suñu vie. mu doon loo day day day bu ñu xoolee day gis boppam su ñun parce que gis nañ ko mu doon ndaw ñeme di investir di jël ay risques di góorgóorlu tey ñoo bokk benn yoon moo bu defee lii day doon loo xam ne bett na ma di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm sàmm ko surtout ko te dem ba fu ñuy dégg promoteur yu mag yi yàlla nañ ko fa dégg ci barke Mouhamed waaw ñu tuddee drapeau bu am solo booy Jules war koo bëri drapeau juróom nan nga fas yéene ñëwee ak ki nga xamante ne mooy seen mbokk tamit ak gars yi nekk si place lu di di woo waa parcelle di woo waa Malika fi nga xam ne fa la sama waajur bu góor nekk hmm? di woo waa parcelle ba 26 di woo képp nga xam ne mu ngi bàyyi xel képp nga xam ne ngi bëggee waa global taxi di woo suñu clients yi parce que tey ji waaw doole commerçant clients yi la moo tax dañuy woo clients yëpp di boo bàyyiwuñ kenn képp nga xam ne yaa ngi bàyyi xel global taxi rek waaye nga doon papaay Assane yaayu Assane tantam rakam magam ñu ngi lay sàkku nga ñëw dooleel ñu ci bés bi gunge ñu yóbbu drapeau mu ànd ak ndam waaw jërëjëf assan gis nañ jamono ji làmb se yéen xam naa ne mbër yi bari dañ leen fréquenté mbër yëpp fii ñëw tey dañ ci tout le temps ci biir làmb day am ay violence yoo am toujours ci ci ci làmb te xale yi amuñu loolu te kenn warul leen yàqal li nga te mooy tey ngay wax ci loolu ci violence am ci ci mbër yi des fois waaw làmb moom dama koy wax amuñ lu dul làmb ñun suñ culture Sénégal làmb lañ am te it làmb la ñuy dund man benn événement rek moo mën a tax ma tëj sama place dem seetaan mooy làmb kon amuñ lu dul làmb kon ñuy sàkku ndimbal ñu muy mag ñi si mag ñi sax laa koy tàmbalee ndax mag ñi lu ñuy def rek si la ndaw yi si la ñuy roy ñuy dawal yërmande te daw violence te bàyyi xel seen bopp bàyyi xel ne ñoom du ñoom kese parce que am na ñuy bàyyi xel boo boo duggee sat lu mat cinq mille places yoo xam ne ñëpp dañ lay tiim kon kooku boo dee mbër wal ngay sportif war nga mën a bàyyi xel ñi xam ñu la wër waaw loolu am na solo ñëw si journée bi nga xamante ne mooy fils de Balla Gora Sock combat bu neex combat la boo xamante ne amateurs yi yéen ñi nga xamante ne ñu tudd lamb yëpp jamono yi xam naa ne jour boobu moom la la 14 stade bi dina fas yéene fees ak li nga mooy ay amateurs ak fils de Balla combat boobu noo ko gisee. waaw Gora Sock fils de mu nekk euh, lamb mu nekk lamb yoo xam ne lamb lamb lamb lamb xale la parce que lamb yoo xam ne njëkk nañ ko jàpp mu amee gàllankoor te ñaari mbër yëpp boo xoolee ñu ngi si état de forme boo xoolee ñaari mbër yi boo leen bàyyee xel ñoo xaw bokk bind. Mm-hmm. ñoo xaw bokk bind. bokk taxawaay bokk nu ñuy jàppee bëri. Mm-hmm. moo tax na nekk làmb jox na bett ñu bëree bëri. Mm-hmm. parce que kenn mënu ne kii mooy favori. di ñaan yàlla defal leen jàmm may leen wér may leen naataange may leen tawfeex ci barki Mouhamed. mais kooku am nga mun na jeexee mun na mën na bëri laa gën a am yaakaar wala mun a a jeexee. waaw parce que ñaari mbëri boo xoolee dañuy ñeme nañ mbapat. ñeme nañ jàppante. waaw mais ci communication Fils de Balla dafa mel ni Fils de Balla dafa xaw a maanaam ñeme góor de trop. ah làmb la rek xaw <laughs> a ah, ñoom làmb la. parce que làmb moo làmb moo bindoo noonu. parce que communication moo mën a jaay. Mhm. seen seen làmb mais ñaari mbër yëpp ñu ngi si état de forme dañ leen ñaan yàlla may na wér. ah defal leen tawféex ci barke Mouhamed. Mhm. waaw ñu ñëw tamit si sa drapeau bi si li nga ne mooy beneen spécial bi booy Gilles euh, na ne waa écurie Fass lay Pikine yàpp ko sa drapeau du yomb nag. waaw ah, drapeau waaw loolu moom. Mhm. Euh, ñaari mbër yëpp samay frère lañ. Mhm. dañ leen di ñaan ku ku daan ku daanu yëpp incha allah rek waa global ah, koy wax ku daan ak ku daanu yëpp bu soobee yàlla global teg si dig na leen traaga ko def bu soobee yàlla. drapeau bi na nañ ko fas yéene indi si eh, eh, lamb ji yan mbër nga fas yéene àndal mbëri parcelles yeeg ak mbëri géejawaay yeeg. waaw di waa Blindé. waaw moom moom doon sama frère moom du lamb. di woo waa parcelle képp nga xam ne mu ngi ñuy bàyyi xel. Mhm. képp nga xam ne mu ñu doon koo xam ne maam jege nañu. Mhm. waaw ñu symbole lañu. parce que ñëpp lañ fi nekkal ñëpp lañ fi nekk muy mbëru géejawaay ak mbëru faas yeeg mbëru parcelles yeeg Pikine bàyyiwuñ kenn képp ki nga xam ne mos nañ seeq yow teraanga rek ñu lay woo si bés bi waaw nga ñëw dooleel ñu ban image jamono si làmb ne image bu la neexul ci làmb ñu dindi ko ci làmb pour làmb avancé gën a image bi moo mun digg ñu bañaan naxante te bàyyi xel mbër yi parce que làmb neexul da ngay xool mbër moo jël ngembam lu mat ak ay six mois yoo xam di ko entraîné. te boo ko gisee day am ay gàllankooru xaalis ba tey. kon nañ bañ di nax mbëri te xam ne. nit mhm. li li nga bëgg li nga liggéey boo bëggee mu barke. Mhm. dee ko dimbalee bañ a naxee mhm. waaw. gis nga ne loolu mooy am am toujours ci làmb mooy ci yenn mbër yi dañuy préparer combat yu yàgg mais da ngay dañu am problème sax jamono ji ci loo xamante ci côté xaalis et ak yeneen ak yeneen ak daan yi nga xamante seen tout le temps dañ koy teg xale yi ci ci biir làmb tey jàngat yooyu tamit nekk loo xamante ne du compliqué ci làmb waaw loolu moom il faut il faut ñuy bañ a ñu bàyyi xel mbër yi parce que tamit euh, entraîner 24 heures sur 24 boo paree yow doo am salaire bu normaal neexul làmb ji buñ bàyyi xel ñu nekk ci mag ñu nekk ci kaw rek nañ bàyyi xel ñu nekk ci suuf te jàppale xale yi te yaakaar na loolu làmb làmb mooy seen métier te si la ñu wéy te si la ñuy liggéey kon day sàkku ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk làmb ñu siy dawal yërmande te bàyyi xel ka ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir làmb ñuy bégal amateur yi nañ leen bàyyi xel bu baax a baax waaw Euh, dinaa laaj benn question boo xamante ne rek dinaa laaj ci combat bi fi am keroog diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye ma laaj ci combat boobu ñaari adversaire yooyu mbër yooyu keroog gis nga ba lamb ja jeexee ba nga nga xool ki nga xamante mooy Gris Bordeaux xool ki nga xamante mooy ki nga xamante mooy Balla Gaye lan la Balla Gaye war a yokk ak lan la Gris Bordeaux war a yokk tamit ci ak côté seen côté staff wala seen côté entraînement waaw mm-hmm. ah bon Balla su ma bu fekkee cadre Balla Gaye moo xoolee mm-hmm. euh, staffam am na lu bëri changé na si mm-hmm. te naa ko jël na décision boo xam ne moom moo ko jëlal boppam si lu ma xool si lamb ji ba pour am ndam sax xam na ne làmb jooju bu ko perte musibaam lay doon waaw mu gën a dolli góorgóorlu gën a dolli entraînement te xam ne làmb mooy métier am waaw giri tamit ñu koy encouragé waaw def na lu ne si làmb champion la te moom moo nekk tedd fas kon na gën a góor góorlu am na du ñàkk fayda moo ko daan daa bëri ba daanu waaw na gën a góorlu waaw ah Assane kàddu yooyu am na solo xam naa ne que Makane bu amee question ñu tëmbal ko ci rek waaw ama bari na ci bis yu mag yu bare bare bare dañ ciy gis teewaayam dëgg la waaw ndax moom duñ ne hmm. hmm. ñu tuddee la dëgg la kon bisam amateur yeeg ñëpp dañ ko wuy si mais leen lan la ñuy xaar ci wàllu mobilisation rek waaw waaw ceewaa parcelle ñeeg mbër yeeg xaritam la ndax bari na ci ñu bare bare bari li ci ba ci journaliste yi sax ay xaritam la ñu ndax kóllëre boo xam ne hmm. dafa dox seen diggante ak moom dëgg la laaj ma ci bon loolu mobilisation bi danañ ko tàmbalee dañuy tàmbalee fii inde douze jaar Fadia jaar Malika suñu kër waajur bu góor dagg yëmbal dugg biir ah, esaat moom incha allah biriw lay doon waaw ah, biriw lay doon loolu moom publication moom doon beneen beneen biriw lay doon incha allah rabi mm-hmm. ba pare di gërëm mm-hmm. li nga di gërëm xaarim euh, sama benn frère waaw mm-hmm. ah, xaarim cuubkat la yow andi rafet na lii dama bëgg nga sol ko <laughs> waaw loolu moo tax dañ koy di ak waa global textile. Mhm. gars yi moom daal du man mais gars yi ku ne mu ngi si jàpp. waaw waaw global textile non doon leneen. doon leneen. <laughs> ak Moussa Dioum ku si daan global textile moo lay teral loolu du man waa global textile ñoo lay teral waaw te sax xam naa ne global bu la teralee dina doon lu rëy. kon ñu ngi lay jaajëf lu baax a baax Assane di wax que drapeau bi nga xam ne Jamaïque tuddee na la ko yàlla la ko tuddee ba tuddee la ko ci ay combat yi mag a mag a mag a mag a mag xam naa ne kóllëre gi mu ngi koy féddali te loolu la parce que yéen lamb fu mu toll jamono ji rek bokk ngeen ci yéenay bàyyi seen yitte ñëw di seetaan ci lamb ji des fois xale mbëri jaar sax fii des fois ngeen yëkkati sax seen i doole jox ci mbëri yi ñu ciy dépense loolu rafet la ci lamb kon ñun bu ñu gisee ñi xam dañuy jàppale lamb dañuy sawar ñu leen dégg suñu micro pour ngeen ciy wax tamit mm-hmm. waaw loolu moom loolu gën a dolli sant yàlla mm-hmm. te waaw ah, ah, <laughs> di di gën a dolli sant yàlla rek. waaw mhm. ah, parce que li ngay liggéey si nga mun a jaamu yàlla. ci li ngay liggéey si nga mun a mun a góorgóorlu jàppalante. Mhm. te tey jii tour global bu demee ba ñu koy dégg fu ne. waaw mbëri am na si ko comme mel ni genre blende yi. waaw fu mu toll mosul def interview te gërëmul Assane global taxi waaw <laughs> kon moom suñu frère moom làmb boolewuñu. Mhm. moom làmb boolewuñu leneen ak leneen moo ñu boole mais du làmb. kon day ñaan daal Sénégal jàmm yàgg fi. Mhm. waaw jàmm yàgg fi jàmm sax fi di ñaan bés bi jéem. di am kontaante si moom. Mhm. jamono kay am nañ kontaante si moom ba fa kontaante am te it ma si gën a neex samay waajur ñoo gën a bég. loolu moom gën a neex xam nga yenn saa nit defal la dara say waajur duñ nangu. mais waajur yi dañoo gën a bég te am kontaante kon dañ koy ñaanal suñu borom defal ko jàmm defal ko feex wal sàmm ko. Mhm. aar ko te bés bii nii. Mhm. te incha allah rafet nañ si njort dina si ami lu ne. ci barke Mouhamed waaw.